bismillahi rahmaani rahim yaa ayyuha allazina amanu hal adullukum ala tijarati tunjikum min asabina limin tuminuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum xayrun lakum in kuntum taalamun kon mbokki murid di ñoo ngi nuyowaat bu baax di siyaaraat bu baax tey indi lenn ci ay kàddu yu seede rek ci sunu baay baay Njaga Jóob bu nu waxee sunu baay nag fi ñu féete woon dafa dafa dafa kawe lool ndax mën naa ne lépp lu ñu xam Baye Ndiaga Diop moo ñu ko xamal ci laata ñu koy gis ak biñ ko gisee ndax man de yaakaar naa fee ma nekk ca Touba 28 gee ñu bari xame nañ ma ko yenn saa yi sax bu jógee këram fee ca Lansar dana fa jaar soog a jàll ba bi mu fee mujjee jaar mooy bi mu jógee Saam. te it bari na fa may taxaw naan Cheikh Ibra nee na dew ma ci tele dew ma ci baas nag waaye ci samay moroom rek sëñ jagaa tax lépp loo xam ne xam nañ ko daal ci yoon wi ñuy dox buñ ci amee fit sëñ jaga moo tax kon dañuy wax ne bibliothèque moom moo dem maanaam ki nga xamante ne bii moo dem mooy koo xam ne dootuñu ko amati ci àdduna ndax mënta amaat ndax ku naan Cheikh Ibra nee na. waaye waxuma jëmmi Cheikh Ibra Fall nee na waaye tarjumaan ji rek ngat bu taxawee rek tarjumaan ji rek da ngay xam ne kii moom kon waajal la waaye nag ki ko waajal xam na ko ndax dañuy wax ne waxtaanam bi mu mujj a def Touba ñi jàng bari na am na koo xam ne bi mu déggee sëñ Ndiaga Firi allazina taxazu masjida diraaran wa kufran wa tafriqan bayna al muminina wa irsaadan liman xaraba allahu wa rasulahu min qablu wala yaxlifuna in aradna ila usna wallahu yashadu innahum la kazibun laa fi fii abadan la masjida la ala taqwa dafa ñëw ci boppam moom ci boppam moo ñëw ne ma man de ni ma déggee sëñ Ndiaga di firee alxuraan mosuma ko dégg fenn waaw ma ne ko sëñ Ndiaga dafa am yu mu boole yoo xam ne daa bokkul ak jàngi araf kese ndax ay araf kese mën nga koo jàng waaye ci ay araf nga yem waaye boo boolee ay araf ba noppi boole jënd am digal ci li ngay def daa bokkul man moom moo ne ma lii ngay def nii ci Touba 28 man nga koy defal ma ne ko ah mu ne ma ndax sëñ Cheikh Fall Baye góor moo ne ma. njaga man maa waroon kër gune ma dugg fa ne leen Cheikh Ibra Fall nee na waaye loolu kat man mënuma ko waaye yow yow njaga loolu na ci góor góorlu daane kon yow boo nekkee fii di yaatal liggéey bi man nga koy defal te yaakaar naa képp kuy tegtaloo foofu ci sa njaga di ñëw laaj ma ko ba ni mu demee ñu bari laaj nan ma ko mu ñuy jàngal ci yoon wi nga xam ne ci lañ nekk ci surtout ci wàllu jëf ndax moom laa njëkk a dégg mu ne jëf lum baax baax baax bala ngaa jëf-jëf ji jàngal li yàq jëf ji ba noppi te yaakaar naa loolu mooy dëgg-dëgg jàngale daan laxas lu mu baax baax bala ngaa laxas jàngal laxar ci ba noppi daan na ab cër lu mu am am solo lu mu foor foor foor bala ngaa xëccoo jëm cër bi dem jël cër bi xamal boo amee cër bi noo koy téyee ba noppi jàngal ndaw ñi ci loo xamante ne bii moo xam da ngay wàllu xitma ngay def ci sa wàllu àdduna moo xam da ngay xitma ci sëriñ bi daf laa jàngal ba booy teg sa tànk nga xam bu baax fi nga koy teg te jàngale na ko côté bépp nag ndaxte yaakaar naa leeral na ko leeralati leeralati ko leeralati ko pour nit ñëpp xam ne jëf moo am solo maa ngi koy wax benn murit barki démb nee naa ko sëñ Ndiaga dafa wax ne Cheikh Ibra Fall nee na ko Baye Mbeng Baye Mbeng nee na ko Cheikh Ibra Fall nee na ko da leen daan romb ne leen Mbeng ñu ne Fall mu ne yow ma yasdur naas astaatan li yarawa li ci topp ñu ne ko Fall ahmaalum mu ne ah sax leen ci jëf de. jëf moo ko may lii tey sëñ Mourou Aminta nag daa am lu mu dane woon ña doon maye dem nañu ñan mayoon dem nañu lii fi des day jaay luy jaay nag ku am njëg rek yaa moom waaye moom day jënd na ndax ku xam tàmbalim ni mu na mu tàmbalee ni mu tàbbee ni mu tàbbee ci sëñ Cheikh Fall ak la ko sëñ Cheikh Fall defal ak fi ko teg ku ne xam na ko sëñ bàcc borom ngàcc bi mu koy wax yàggul Mouhamed man nga ma mën nga ma ci seede mu ne sëñ Jaga bu daan ñëw ci sëñ bi daana ma fekk. bu ñëwee yor këyit ak bic sëñ bi di wax muy karmbat am na ci loo xam ne sax sëñ bi day wéetoo moom ba noppee mu jóg dem lam wéetoo ak moom nag kenn mënu ko xam kon loolu jënd la kon Baye Fall dafa bëri ay ay ay façon ay pàcc ñi dañuy nekk ci wàllu xitma ci wàllu tool ñi nekk murit yoo xam ne dañuy sëy am murit a takkoo am murit yoo xam ne nag sëñ bi da leen a liggéeyloo ci wàllu xam-xam ndax mënu cee ñàkk ndax Cheikh Ibra danaan wax naan xam-xam kat xaw ma bokk ci. muy tawfeex